mbokk yi ñëwoon démb salaamaaleykum waxtaan wi tey dama koy door di leen ndokkeel ci bis bu mag bi nga xam ne dañ ci génn keroog ci ACR ji bu nekkoon bis bu rëy rëy bu rëy parce que xam ngeen euh, génération bu war judd dafa dilu jafe génération bu nga xam ni dafa am rendez-vous keroog jooju ak la postérité lool am nañ ko ci njàlbeen maa ngi fàttali génération ñoom Cheikh Seck Jules Bocandé ba Oumar Gueye Sène ca 1er euh, septembre 85 ñoom Ferdinand Coly mii nekk tey ak xale yi ak ñoom Alaaji Diouf ak Henri Camara am nañ ko keroog ci Maroc mu nekkoon bis bu rëy moom la xale yi amoon dëgg la su ngeen xoolee match bi am na ci surtout en premier mi-temps moment yu nga xam ne ils ont très mal joué day am ci match bu mel nii loolu mënuñ ci rëcc lu tax mal joué li koy indi moo di ragal bis boobu ñu raté ko xam nga foofu sport yëpp fa niroo boo ragalee ñàkk rek match bi du neex ci yow te bu neexul ci yow tu va mal jouer loolu moo leen dal ba deuxième mi-temps ñu daal di rectifier keroog bi ñuy songu match bi Sénégal Cameroun yi nee naa leen barewul Sénégal Cameroun yi barewul ñun fekk nañu yu jëkk yi ba tax na keroog bi ñuy teertu Cameroun ma ni damay dem ci mat ñi ñoom ñi nga xamee ni ñoo yelloo match bi wax ak xale yi damay def comme su mag ñi waree wax ak xale yi le premier Sénégal Cameroun a eu lieu en 1961 aux Jeux d'Abidjan keroog lañ jëkk dajeel Cameroun ndokk yàlla ba nga xamee ni am na ñu nga xam ne tey jii ñu ngi ci kaw suuf di dellu si nag ah, di ku ñi ci jógee te nekkoon ci Domingo Mendy nekk le deuxième capitaine de l'équipe nationale Badara Gueye Blé nekk le premier capitaine de l'équipe nationale tey jii ñii ngi ci biir suuf Ama Diaw mi nga xam ne keroog moo leen dugal euh, ñaari but Sarbandam Younous Dieng ah ñooñu ñoo nekkoon ci Sénégal Cameroun bu 1961 tey sangoo suuf ñu leen di fàttaliku waaw ci bis bu mel nii parce que ñoom ñoo jëkk sol bañu Sénégal janoo Cameroun ñi ci kaw suuf ñu ngi fi ma ñi ci kaw suuf dama cee jëli koo xam ne tey jii bu këru gaynde yi doon juma di wut imam dañ naan kooku la kooku di Bouba Diakhao moom la ñu jëli moom la Alou daan wax le prince de ngeen déggoon keroog bi ñuy gàttandu émission bi xaaj bu njëkk bi ma ne leen dinañ dellu si ci ñaareelu xaaj bi gannaaw bu ñu joué Cameroun ba pare yàlla suturaal ñu mu nekk nag yoon wu neex ba tax na jataay bi dafay daal di neex ba tey parce que buñ ci jëlee ndam ndam lu nga xamee ni dafa wane ni équipe bu Sénégal bi tegu ci kaw yoon wi nga xam ni devancière am ubbi nañ ko génération 86 ker 86 génération coupe du monde 2002 ma ni kon am na génération bu judd boo xam ne bëgg na sore yi keroog ci émission bi ma dem jëli Bouba Diakhao mi nga xam ni moom laa wax ni mooy imaamu Lyon yi tey jii ma ni que Bouba tey jii bu fekkoon da ngay waxtaan ak xale yi di leen wàcc ci terrain bi yan conseil nga leen di jox yow Bouba Diakhao yow mi sol mayu équipe nationale du Sénégal ca premier Sénégal u Cameroun 1961. waaw li ma leen di wax laay mooy presque li ñuy war a fekk sur lu terrain du ma yàlla nag mais dama xam Cameroun xam na it Cameroun xam na équipe bu Sénégal xaw ma ndax xale yi xam nañu Cameroun wala déet mais dafa am tuuti lu ma ci war a dénk leen ko pour wax leen. c'est une équipe. équipe Cameroun équipe la boo xamee ne bu ñëwee ci Sénégal fii du jouer seeg Sénégal du indi technique du football technique dina indi euh, efficacité lay indi dans ce jeu. ak agressivité agressivité bu mat sëkk lay indi. pour contrer les éléments du euh, du Sénégal. il faudrait que xale yi ñu sóor Cameroun dafa am lu mu bëgg ndax da ko rawee deux points. soo ko dooree rawee ko cinq points. ba war ko fekki. war koo fekki te amul problème boo ko rawee cinq points rek presque jaar ndax ñi si des ñëpp lay fekk si. Mhm. donc moom ci boppam qualification mu ko war a jëlee ci Sénégal. Mhm. xam nga ne match boobu ñor na leen. waaw xam na ne match boobu tey ñoom bakkan lañu ci teg. wax nga dëgg Diop. ñun nag ñun itam ñu war a naaf suñu xale yi. Mhm. pour wax leen ne championnat bu ñuy joué fële bokkul ak le match là qu'ils vont rencontrer ici. ndax le football européen et le football africain ça fait deux footballs diamétralement dañu wutee wax nga dëgg dañu wutee kee c'est du football de technique nga nekk fa da ngay briller ñu di la gis waaw mais fii c'est du football boo xamee ne alors dafa ànd ak ak endurance ak combat ak combat mhm. quatre-vingt-dix minutes durant wax nga dëgg bu mu la ko gën a bëgg wax nga dëgg Diop ñun xam nañ ne match bi ci kàttanu yàlla mooy sunu qualification wax nga dëgg moo ñu ko gën moom mooy oh. qualification mooy suñu ah, ah. qualification jox nga dëgg Diop donc ñun il faudrait que ñu def tout tout tout pour gagner ko fii oui c'est important te loolu it je demande la population sénégalaise jërëjëf Diop que à tout un kenn ku ci nekk la nga mën na nga ko ci jàpp nga def ko ci jërëjëf Diop Sénégal moom moomee jërëjëf Diop du l'équipe nationale du Massamba du Demba c'est le Sénégal équipe bi bu gagné du naan Sénégal moo gagné wax nga dëgg Diop duñ ne Jean moo gagné duñ ne Paul moo gagné. Mhm. donc à tout un chacun sur les joueurs. maa ngi leen di ñaax wax leen ne. Mhm. ne croyez pas ak seen technique. Mhm. votre technique. am ngeen ko mais il faut ngeen faire valoir ko. waaw sur l' adversaire. waaw woon ko ne ko match bi yaa ko ko gën a nga dëgg sur tous les plans. et puis quatre vingt dix minutes durant. c'est un match où il faudra se battre. waaw da ngay xeex dëgg pour gagner ce match là. nga dëgg c'est comme qu'on faisait parce que ñun li ñu daan may chance bu ñuy ñëw du ñuy nekk des ouvriers bricoleurs. ouvrier su ngeen di ñëw ouvrier ngeen. la ñuy doon contre moom. <laughs> est du tàng du sedd mukk. est-ce que ñu koy tàngal ba ba arbitre bi lit fa. waaw. te loolu laa bëgg ñoom itam ñu di ko def. wax nga dëgg ko woon fu nu teg tànk nan fa teg tànk. xeexal ñoom woon leen ni lii ñoo ko soxla. est-ce que. te may demander la population aussi les supporters à tout un chacun nanu manifester encadrer les joueurs waaw. carrément te ñu éviter parce que xam naa leen dinañ leen jéem a provoquer provoquer. ne répondez pas. yéen bi ngeen di dajeeg ñoom 61 Abidjan daan nañu romb seen néeg di fa dóori ay ballon ci parenteer ba waaw ñoo ñoom presque ñoo dëkkoon. waaw moo tax ma wax loolu. Ah, parce que ci benn école ngeen dëkkoon. Mhm. dañoo ñëw ba ci seen bâtiment. Mhm. jël seen ballon di ko dóor seen parenteer. waaw parce que yooyu yëpp. provocation la mais ñun on répondait pas. wax nga dëgg li ñu war a def. Ah. ci biir terrain bi la du ci biti fii. bi mhm. biti déedéet bañ ko defee jigu leen kaat leen jël. man la ci biir terrain waaw. ballon ba noonu dóor foofa. Hmm? dóor nañ leen ko te fayu. ci seen biir kaa ñeenti yoon waaw te fayu <laughs> waaw. jërëjëf gaa ñi gis ngeen Bouba Diakhao laa leen indil tey gis nga jox na leen image nee na maillot suñ ko solee ouvrier la doon ça veut tout dire dafay dégager profil ak personnalité ñooñu ca woon ñoom Souris ñoom Youssou Ndiaye ñoom Cheikh Thioune ñoom Domingo Mendy ñoom Badara Gueye Blé ñu ngi doon mooy photo bii ma leen wan di ànd ci ak ñoom. kuy joué 1958 sol le premier mayo de l'équipe nationale du Sénégal 61 il est même international malien parce que nous avons été nous maliens le temps de la fédération hmm. dem Madagascar 59 60 mook ñoom douzaine ñoo ànd ca maillot fédération du Mali parce que tey jii bu ñu demee Mali ñoom mën nañ fa am carte internationale pour avoir revêtu le maillot de la fédération du Mali kon Bouba Diakhao bu ñu toog ak moom xajul ci benn émission. alors tout à l'heure on était en équipe nationale. Bouba euh, avec le COT. nga teg les deux finales de coupe du Sénégal. 1964 COT Wakam 1965 COT Gorée. malheureusement yëpp ñaar COT def ko perdre je reviens à la première finale. contre contre Wakam. Mhm. ban fàttaliku nga ci am. waaw mais match bu metti parce que sunu première finale ak Wakam c'était difficile. une équipe comme Wakam éliminer toutes les équipes yi mu rencontré. Mhm. nekk ci digg Dakar. Mhm. di defal l'honneur de Dakar. ñu joge Thiès ñëw fekk si ko dans son mhm. di jouer moom c'était difficile. tey jafe kay. ça cent vingt minutes match. dellu si deuxième édition ñu ñëw. waaw coup d'envoi directement COT marqué bi coup d'envoi en trente secondes la COT a marqué le but. qui a été refusé et on ne sait pas pourquoi. ba tey <laughs> tu vois finalement ci la jeu bi demee boobu ka am gagné on s'est présenté bon ñu di ma interviewé ma laaj man je la valeur de mon équipe hmm. xam naa ko bu baax xam naa ne te ku ma àndal ñu def terraineur naa dinaa lu dugg hmm. xaw ma ma fekk si la si hmm. ndax équipe bi ma gagné sama troisième sama deuxième édition finale Gorée maa ko éliminé en demi finale. waaw ñoo ñoo finale waaye maa ko éliminé. waaw te c' est des équipes yoo xam ne kenn mënu leen. Mhm. donc xamoon naa te footballeur yi nekk ci Angleterre. Mhm. xamoon naa seen valeur xamoon naa seen rythme. Mhm. bien que dama daan suy ak moo tax en première finale bu ma gagné dama maa ngi invité sama adversaire déwén incha allah dina dellu si waat final. foofu justement damay woo Alassane Ndiaye Alou parce que pour ganale bu ba jaxaaw dama dem ci archive indi Alassane Ndiaye Alou la Alou waxoon ca Bouba Diakhao nous sommes en euh, coup d'envoi final bi dinañ ko joxe dans quelques minutes ñu déglu Alassane Ndiaye Alou la mu wax ci Bouba Le club olympique thiessois s'est aligné sur ce même terrain l'an dernier face à l'Union sportive de Bocam pour jouer la finale de la Coupe du Sénégal de football. Et eh bien après deux matchs véritablement inoubliables Après deux matchs que les spectateurs auraient voulu voir se prolonger indéfiniment, tellement le spectacle produit était magnifique, eh le COT s'est incliné devant l'US Wokam et a perdu de ce fait la Coupe du Sénégal de football. Mais à l'issue de la rencontre, Boubadiahaou qui commandait l'équipe ce jour-là avait promis de revenir cette année en finale et voilà que le COT est revenu cette année encore en finale. Eh le club olympique ce soir, c'est également Bouba Diakhao, c'est un des plus grands joueurs. C'est le joueur que nous aurions aimé offrir en exemple à tous les jeunes du Sénégal. Depuis 15 ans que nous le regardons jouer. Depuis l'époque où nous l'avions surnommé le prince de Djali, eh bien Bouba se comporte sur tous les terrains, aussi bien avec le COT qu'avec l'équipe nationale, d'une manière véritablement remarquable. Wow, allô, daf ma yàgg suivre. Il venait à Thiès de superviser mes mu ñëwee Dakar la même chose xamoon na ko bu baax. Mhm. ndax dafa mel ni ki yow Alou moo fi def une équipe boo xamee ne bii yóbbu ko Mali. way way un reporter comme Alassane Ndiaye. def na loolu moom def ko yóbbu Mali. dem dóor Mali Mali. way mais vraiment kooku. bu ñu ko jàppee comme reporter mais c'était un connaisseur. ah c'était un connaisseur un connaisseur. wax nga dëgg <laughs> parce que lii ngay def ñun duñ la ciy sant di dolli di la ci. jërëjëf Diop. parce que jafeñ na. jërëjëf Diop. yow yow rek yaa fi reporter bari na ñun li mu def fii ci Sénégal amul kenn ku ko fi def ci équipe yi fi jaar yëpp. Ah, def ngeen fi lu rëy. équipe nationale bi mos a yëkkati coupe yéen la waaw. coupe boo xam ne mën nañu ne coupe d'Afrique. waaw médaille d'or yéen dama fàtte sax indi sama médaille d'or mi ngi ma denc ba ndeysaan yow mi ngi ak man ba léegi ni si 63 ba léegi ni si maa ko denc gannaaw médaille d'or bi jox nga équipe nationale internationale parce que yéen ñi may déglu ànd ak ànd ak Bouba Diakhao yéen a ngi fàttaliku Younous Diop mu joué équipe nationale sous Lamine Dieng papa ma ngi nii euh, Younous euh, daan nga wax ak moom ci ci équipe nationale bi nga def ak li muy vivre. du hmm. bari parce que man maa ko amee woon comme entraîneur dans le CO. tu l'as entraîné. maa ko entraîné man sama bopp maa je l'ai façonné. Bouba entraîner sa doom jafe naa parce que euh, poste bi ñeneen bëgg nañ ko. Hmm. mais nag euh, aussi. Ah. Euh, aw ma woon yërmande ci ma ba nit ñi dul ma daal xas ne ma damaa bañ sama doom. ndax charge bu métti. waaw ndax man ni ma mel ci football. wax nga dëgg. ñu ne ma xale bi am na place lu tax doo ko classé may leen ñoragul ci man. est ce que. bàyyi leen ba mu ñor ci man ba ma génn. Uh-huh. dama ko daan entraîné teg ko ci banc bi. wax nga dëgg. bañ koo placé. wax nga dëgg Diop. ñëpp daan ma am football lu tax doo ko dugal lu tax doo ko xale bi li muy wane entraînement nàngam nangam mais man xam naa sama doom xam naa li ma bëgg mu di ma ko dool ma denc. bu ba xam nga maak yow xaw nañu football yow. Euh, doo ko gis man maa koy gis parce que booba temps star nga. booba star nga. Hmm. maa ko yow football nañu. Hmm. football nañu dama ni xaw nañu football mais football nañu. Hmm. xam nga gis nga 65. da ngeen di final see Gorée. yéen a éliminé Foyer. à Saint-Louis. seewateeg Foyer. ndar lañ ko indi. ngeen éliminé Foyer. booba temps fekk na ñun Foyer moo ñu éliminé en quart de finale à Thiès. Ah <laughs> def deux éditions. Foyer def ñu éliminé deux éditions à Thiès. bu njëkk bi 3-3. yéen ngeen def ak moom demi final à Saint-Louis. parce que boobu temps gis nga déjà ñi nga def terrain neutre. diggante Ndakaaru ak ak Thiès. ñu yóbbu leen Ndar diggante Ndar ak Ndakaaru ñu indi leen Thiès. Euh, saison boobu maak yow def nañu benn Saint-Louisienne COT à Thiès. à Thiès wax nga dëgg. nañu ma nekk un junior bu joué avec l' équipe première. Mm. est-ce que laay man bi may bàyyi. football ah. sax je n'étais pas wu ma ko. bi ngay bàyyi. dama teel a commencé. nga bàyyi ban année. man en 1971. âgé woo woon lu tax nga bàyyi Bouba. Euh, seulement dama teel a commencé football à l'âge de 16 ans 17 ans commencé naa di football. te mmh. dugguma junior dugguma cadet dama tëb tëb rek di commencé senior. Mmh. moo tax ma am la chance de jouer avec les Lamine Diack. joué nga ak Lamine Diack. joué Charles Wade. waaw. joué ak Diadio Alexandre. est-ce que. ak Sarr de Kile. oui oui. tu loolu moom mooy une chance. ma mhm. joué ak ñooñu fekkoon leen ci presque seen fin wu carrière. exact. après nag moo continuer di jël les promotions di ànd ak ñoom di dem di dem en 71 bi may bàyyi je pouvais jouer. Mmh, encore mais man maa jékki. arrêté di arrêté ñu ne ma pourquoi ma ne leen doy na. ñu wax wax wax man leen doy na mais bi ma bàyyee dans mon service. dama daan joué corpo di gagné coupe yëpp. <laughs> corpo waaw à Thiès. oui à de fer. Mhm. coupe yëpp dama ko daan gagné j'ai en tant qu'entraîneur joueur. entraîneur joueur waaw. alors ma fàttali ni son club de toujours c'est le COT. COT c'est l'abréviation de club olympique thiessois mu nekk euh, la plus thiessoise des équipes de Thiès mu nag réussir la percée africaine parce que tout à l'heure vous avez entendu parler du COT. ci deux finales de coupe du Sénégal 64 65 mais COT a aussi connu l'AOF buuba def ngeen coupe d'AOF ay périple africain yu mag mhm. yan fàttaliku nga am ci périple yi waaw en 1958 bi ñuy dem di jouer les quarts de finale de la coupe d'AOF ñu ngi tombé ak le Racing Club de Conakry Racing de Conakry qui a éliminé presque toutes les équipes yi mu dajee ñu ñëw fekk ñoom en 58 la euh, Guinée était partie à l'indépendance mhm. toute la Guinée était rassemblée derrière son équipe. ñu joué 4 de jeu bi ma tuddee sama doom bi di passe góol bi Louis Niang. waaw Louis génn na ko à moi mu sànni bal bi de l'autre côté marqué mooy bii wu Conakry. mooy bii wu Racing Club de Conakry. waaw fa la yem. muy un but à zéro mais Younous ne pouvait pas comprendre que c'est lui a marqué le but. maa ko fekk fi mu tëdd di yuuxu ma yëkkati ko. ko jóg bi jeexul. quatre minutes de jeu lañ def. waaw c'est pas fini. oui ñu football. oui oui. moraliser que un peu mu jóg ñu commencé. Mm-hmm. mais à la septième minute ci la ñu par Samassa. tout de suite après. waaw ah. septième minute la ñu égalisé par. par Samassa ndeysaan. c'est le couloir gauche. fa la dégagé la tiré bal bi rek marqué ko dans la lucarne. Mm-hmm. ñu ne un un. ñu toog toog un un ba mi-temps jeex ñu ne un. à la reprise la Guinée voulait coûte que coûte assommer le COT. le COT a mm-hmm. a résisté ñu résisté résisté ba bi ñu demee dans les vingt cinq minutes de la deuxième mi-temps ñu amorcé une contre-attaque. bu Kouroumen Ndiaye moo doon sunu milieu du terrain. Kouroumen ma réceptionné de la défense transmettre ko bal gi mu pousse dribbler. mimé sur le plan droit, gagné un obstacle, me crocheté sur le plan gauche. décroché sur le pied gauche. Il a marqué la balle à la lucarne, goal buteur, 1902. Rachid du club de Conakry 1. Nous sommes fan. Téye match bi téye match bi ñoom def kër kër kër ñu téye match bi ba temps jeex. est-ce que. noonu loolu éliminé Racine Club de Conakry. mu nekk la plus grosse performance awoyo fien du COT. Ah ah waaw waaw parce que COT. qualifié en demi-finale ñu ne ñu du ñu yóbbu Côte d'Ivoire toujours c'est le COT qui doit se déplacer. ngeen génn en quart de finale. waaw demi-finale war génnaat. ab ah, war génnaat injustice bu wërsëg. ku ñu leen jox en Côte d'Ivoire. Euh, en ASEC wala Africa. stade d'Abidjan crois que stade d'Abidjan. stade d'Abidjan. et ce jour-là ba ñuy dem amuñu effectif presque je peux dire que ne onze joueurs wala ak quelques supporters la déjà bi ñuy dikk dans l'avion Kouroumène était malade avait de mal de l'air avec Carlos. Carlos ñu wàccee rek ñuy yóbbu leen à l'hôpital. Carlos. ba keroog marché bi lañ leen fa jëli indi leen pour classer la. est-ce que est-ce que. vraiment. <laughs> c'était alors Bouba Ndar Ndakaaru ak ñoo jëkk ci footballu Sénégal. Hmm. ñoo def championnat interdistrict avant les indépendances. Hmm. bi ñu demee indépendance ñoo jëkk final. Thiès teg la ñetti at di final. 63 daf ko gagné ngeen dellu si 64 65. mais léegi Thiès dafa disparaître. te warul disparaître parce que épine dorsale la noo comprendre Thiès bi nekk tey jii en veilleuse te musa nekk base équipe nationale parce que euh, euh, daan na am équipe nationale bu nga xamee ni soo xoolee 22 yi y avait 7 ou 8 Thiessois léegi Thiès ñu nga deuxième division ban explication nga ci am yow mi nga xamee ni yaa doon porte drapeau. football Thiessois. Mbaye maa ngi lay sant di la gërëm xam nga léegi wolof du ne lu ñor rek am borom. lu sotti am borom. lu sotti rek am borom dama ne les clubs de Thiès seetal ñoom ñëpp kan nga ciy gis un ancien bu la encadré. un ancien. bu lay encadré. ci club bu Thiès yi. waaw anciens yi nekkuñ fa. du benn ancien bu leen encadré. les anciens footballeurs ku ci nekk da ngaa dàq say anciens. waaye dit waaye booba. il n'y a que du nouveau te football expérience la. Mhm. pour nga jàngal ko nit. da ko war a xam. wax nga dëgg da nga ko war a pratiquer. Mhm. da nga ko war a vivre. Mhm. pour mun koo jàngale. nga dëgg Diop. wandal yow loo mo loo pratique wu mokkaloo ko jàngoo ko bugg di ko jàngal nit. mais kooku du sori. déedéet day réer. du sori race bi day réer. loolu moo nu dal. fu ancien footballeur new. foo jegeñ. ñu dàq la. mais yaakaar ne ci télé bi da ngay ñëw di wut si xaalis ñun ñu am xaalis. déedéet nous avons gagné une médaille d'or te amuñu dix mille francs de prime. amul woon dix mille francs de prime. prime amuñu ko. rien que pour le drapeau. uniquement jom ji drapeau bi. Mhm. défendre ta nation. Mhm. benn dix mille francs amuñu ko prime. Mhm. match yi ñu gagné yëpp. ba jusqu'en finale gagné le trophée amuñu dara. dara invitation président de la république au palais. discours et c'est terminé. du dara ku nekk ñibbi. waaw gaañi Bouba Diakhao a ngi nii euh, Aboubacar Diop moom ngay liir ci licence bi waaye Bouba Diakhao moom laa wax ñi dañ ko dàkkantele dëkkam Bouba Diakhao bi naka la la toppee. waaw xam nga dans le COT dafa amoon ñetti Boubacar. <laughs> ñetti Boubacar. waaw y avait Boubacar Ba. ah Boubacar Diallo. Ah. et Boubacar Diop man. yow waaw. quand on disait mënoon wax Boubacar ñetti ñëppay wuyandoo alors maintenant nag pour ñu def ci identification. Hmm. suñ ne Bouba Diakhao xam mm-hmm. ne mm-hmm. Bouba Diakhao mi mm-hmm. su ne Boubacar Ba mu xam ne ma bu ne Bouba Diallo ñu xam ne <laughs> alors dama ñëw phase finale nationale Thiès Thiès Diakhao nawetaan bi man leen tour bi moo diis waaw équipe bu Bouba du fande euh, yëgoon naa sax ni ñoom ñu ngi doon wuj bëgg dugg en régional euh, ci trasu ñaari tali ak waa HLM yow nga nekkoon ca conseiller fu projet ba toll. waaw projet bi benn tey ñu ngi koy mûrir parce que je crois que ne gauche ils ont wax nañ ma ni ma démarré nañu. Mhm. pour jouer dans le championnat régional. bon euh, xam nga jaxaaw. waaw yàlla lu ko may lu bari loo xamee ni lii tous ces éléments yaa ngi koy fekk ci quartier bi. ci quartier bi waaw équipe la. équipe bu quartier te yàlla dafa yàgg def di football. Mhm. de quartier. Mhm. yàlla ko sëñ. paceeku Abdoulaye Diallo. Mhm. Euh, les Amath Diallo. Euh, tous ces joueurs là ñëpp ñëpp ñëpp jaxaw moo di seen formation. est ci bari man maa leen yore formé leen au départ. ndeysaan ñu te ñu ñëpp kenn ku ci nekk caay te international. wax nga dëgg. gis nga loolu mooy doole jaxaw. wax nga dëgg seen euh, final bii ngay wax ñun ñëpp duñu ci jàpp. waaw waaw yëg naa te. ki ngay finalal te moo woon sa premier match ak moom. Mhm. muy doon Diourbel. que ne booba am na lu tax. wax nga dëgg Diop. waaw il croyait que ne bu ñëwee bi yoon noonu la wax ko lu baax wax nga dëgg Diop wax nga dëgg. neex wax nga dëgg boobu. wax nga dëgg kon Sénégal tey Bouba Diakhao laa leen jox. le prince de Thiali moom la Alassane Ndiaye daan wax Thiali moo doon terrain Thiès ba Aliou daan wax moom mooy prince su Thiali parce que ku ko fa fekk daa nekk sous ses ordres lui Bouba Diakhao le prince de Thiali kon bokk. gaa ñi jataay yu mel ni kenn du ci doyal parce que da nga cee toog di jàng xëy na loo xamee ni ñi lay jàngal duñ la ko wax lii moo neex ci mën nekk ak mag parce que da ngay jël ci moom loo xamee ni fa ñuy jàngalee kenn du ko fa jàngalee parce que xëy na ñiy jàngale loolu daf leen féete gannaaw ba tax na am mag ci biir kër doy na di jàng bis bu nekk moo tax ñuy ànd ak mag ñi yal na ànd bi ñuy ànd ak ñoom yàgg ba ñu war mën hérité ci lii nga xam ni dañ ko war taawu ëmb ko pour d'autres générations Bouba ba la leen indil tey jii ci ñawoon demb di leen fàttali ni ñawoon demb dafay defaat dafay defaale actualité parce que keroog bi ñuy gàttandu Cameroun laa jëli ba ni ko yaay wàcc Cameroun gunge leen moo indi ñaari émission yi nga xam ni dañ ko def ak moom euh, keroog avant ñuy jouer Cameroun ak tey ji bu ñuy jouer Cameroun ba pare yàlla suturaal ni ci mu nekk waxtaan wu neex ñu dellu si di ci féliciter xale yi di ci féliciter l'ensemble des sports au Sénégal parce que keroog ñëpp a gunge équipe nationale Sénégal def naa ni record d'affluence dañ ci battre parce que stade bi fees na ba war jër soixante-dix mille teewul vingt mille ngi ci biti kon wane na jant ci kaw football du so waaw jant ci kaw football du so léeg mu am rek nuage yu ko nëbb mais dafay génnaat toujours parce que football moo ni mel kon jërëjëfati ci euh, émission bi ñuy ànd ak yéen alxames yu nekk ci waxtu wi rediffusion bi li la ngeen laaj ma ko ba fàttali ko ba tey rek ajjuma bu ñu jogee juma ba ngeen janoog émission bi ci euh, TFM ci juma ji ba pare dinañ leen delloosil euh, ñëwoon démb kon di leen ñaanal ngoonu jàmm ci antenne bi di leen jox nag rendez-vous ci beneen jataay ak ñëwoon démb mag ñi nga xamee ni dañ fi def ba léegi lu ñuy waxtaan